Chers amis, nous voilà au milieu de la, la forêt coldoise, euh, en plein milieu des rizières de la napé Nous avons été contraints à ce détour pour se rendre à Pelengara depuis qu'on a quitté Kolda. C'est tout un escadron de la gendarmerie doublé de, de, de, forts effectifs de la police qui nous ont suivis partout, dans les moindres coins et recoins des plus petits villages pour euh, euh, arroser tout le monde de grenades lacrymogènes. Je présente mes excuses à ces de villageois qui n'ont commis d'autres crimes que d'être sortis pour accueillir Ousmane Sonko. Et depuis qu'on est arrivé à Diaoubé, euh, c'est allé un cran au-dessus, puisqu'ils ont même barré la route et ça a déclenché des affrontements avec les jeunes. nous avons été contraints de prendre ce détour euh, à travers au moins de de transport euh, différent de ce que vous avez l'habitude de voir avec nous, notamment euh, modeste véhicule, et de passer à travers champs pour nous rendre à euh, Velengara, parce que dans tous les cas, s'il peut à Dieu, j'entrerai aujourd'hui à Velengara au nom de la liberté, puisqu'il s'agit de la caravane de la liberté. au nom de cette liberté, nous considérons que Macky Sall ne doit pas empêcher les Sénégalais d'aller et de venir, de circuler et d'aller à la rencontre de leurs compatriotes. mbokk yi ñu ngi fii ci àllu Kolda bi ngeen ko gisee fii mooy li ngeen di dégg nag ma defal leen tuuti publicité ci Kolda bi ñu bëgg a def tourisme te da ngi dégg toujours ñuy wax anam bi nga xam ne liñ fiy béy ci ceeb moom macha allah bëri na lool moo nekk nii lii lépp ay toolu ceeb la gis ngeen ne béykat yi ñoom euh, wëlbati nañ suuf si ba pare di xaar mu taw rek ñu sànni ceeb euh, li tax nag ñu jaaree fii mooy gis ngeen ni suba ba léegi biñ jógee Kolda ba léegi. danaka gendarmerie escadron gendarmerie moñu ñu ak ay policiers yu nek ci ay car ak pick-up yu bari dekk dëkkaan bu ñu taxaw rek wa dekk bi génn ñu sandi len ay grenade yu dul jeex ñuy masawu suñu mbokk sénégalais yi nga xam tay jamm lañu mësa xam ak dal ndax ku xam dekk dekk kaw gi xamni xamuñu yoyu tay ñu gazer len di len sandi ay grenade ci lo xam jaru ko won waye gis ngeen biñu exé ba légui nak dafa yokku lañu andi ci ay alkati mardi tali ñu dem ba nak di bar yoni. mu melni nak ñom Ousmane Sonko dem Belengara continuer Tamba la bañ waye li gëna a moy ci li ma yëg ci ay xibar Ousmane Sonko dugg bi dugg ci bir Dakar mo leen téré na bu soobee Yalla nak dinañ dem inshallah euh li mo taxon nak ñu jaaré ko ni bu ngeen xolé sax dañoo bayyi suñu staff bi yëpp ñu ngi leen téye feulé ci àll bi obligé jël ap xamné daal dañoo jàpp ni ak nu mu munti demee tey bu soobee yàlla dinañ dugg wér ngara parce que Macky Sall mënuñoo war a tere ñuy dem di dikk karawaan bi dañ ko tuddee woon karawaanu liberté mooy karawaanu àq ak moom sa bopp mën a dem di ñëw loolu nag Macky Sall mënuñu koo tere te bu soobee yàlla tey dinañ dugg Vélingara nañ fa war a duggee saafonteeg waa Vélingara kon ñu ngi leen di dalal seen xel dara daluñu di masawu xale yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog alkaat yi ak ñi ci gaañu di dellu si di waat ki nga xam ne démb comme niñ ku ne comme Macky Sall di baaxoo rek doon nañ ko bal fële ci Kolda di wax ni loolu lépp dinañ ko topp nag fu mu fu topp di yem fii ak ci bitim ñu ngi leen di leen sant asalaamaaleykum.